ah Fall te yaa ngi jëlof ci kenn. ah fa tabarkalla macha allah sama xaalis yi nag nee naa ki ko man ak ki koy jéem du benn du ko du ko jéem dàngaat gi nag lépp xel waaye warul mesey waaja waaye ay ko doxantu ba ak si ah, nga xam ne nag nuroo yombul waaye bokk du benn te cin bokkul ca fi jëlof ca kenn ci jëmmum. ne kon ca xayra dër ca mbeddum 30 ba tuxu ñëw fii ci Mbàkke ba ah waa Mbàkke am ngeen gan ci pule yu baax waa Mbacke am nañ kat. Touba ci sànni si baax waa Touba waa Mbacke waa Ilipor waa Darou Salaam fépp fu ngeen nekk ci diwaanu Bawol rek ñoo leen ngeen seet si Coller ca Kanam mi ngi fii ci ODK bi ci autoroute bi nga xam ne foo mënti jëm ci réew mi ah nga fay jaar gis ngeen ko xeet yu baax da lay jaay may la lebal la fàtte laa fayu te lépp lu mu lay defal nag qualité lay doon neex na bari na te sant ñaar kenn du Coller ca Kanam ci biir réew macha allah sama léegi barkeel bi moom a aja kon na ko dal bisimilah barke borom njëriñ lii moom ah lii moom la ñuy wax poulet de pané waa jàngi xoolal xam nga togg bi ñor na nga laal mu togg la waaye togg des koy mën waaye. man ku waa Touba Mbacké waa Touba Mbacké yu baax yaa ngi fi yu baax yi dee ngi jëlëf jëkkër moo yow li sàppaaral na ma dee waaw loolu ma ne ñaaw na ma dee ak sa boisson ak sa fruit ak sa boisson ak sa fruit ah kii ko hmm. lii lii xamal naa ne man lii yàq na ko xamal naa ne ñaar lii de bañ bañ ba ci bët bu ñu sànni kenn bu ma ko soxee des sa dund ak kii man koy def tegal sama yëf ma yow dama dem rek tuul tegal sama yëf xam nga lu jaax ah, lu jaax naa daw yox xaar nga demal cuun euh, bëgg nga maa mag ba drap ma waaw dama ne waatal ne baal sama yëf yi lii maa ko bëgg fop fop nga dama ne euh, booy cuun yaa ngi may doo nga naa waaye añul lu may ma ma ci gréto maa la gën a xam sama mu tàmm ko dina kécop <laughs> loolu na laa dee rek